asalaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrice Leral TV ak Leral point net maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëw ak yéen nag ci seen émission bi nga xam ne moom ngeen taamul seen bopp bëggal ko ni li nga xam ne mooy sañse yi tegal leen ko ci kaw table bi ngeen daal di dem jëndi daal di kont sañse daal di kontaan tey nag dañu doxantu fii ci Almadi ñëw seet ci ki nga xam ne mooy Euh, Moustapha di Baara Couture Baara Couture nag kenn ko wax te du du mode wala sañse mu nekk styliste boo xam ne yàgg na lool ci métier bi man lool li muy def ñu xam ko ci bu baax a baax baax ñu ñëw seetsi ko fii ci place am bu bees bi nga xam ne ubbi na ko fii ci Almadi ñu bàyyi ko nag mu nuyoo ak téléspectateurs yi euh, Baara ma bàyyi la nga nuyoo maa lay nuyu di di di di la ziar bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan salaamaaleykum di kontaan ci dalal bi ngeen ma dalal tey euh, ci ci journée bi. Mm-hmm. yéen waa leeral point net. Mm-hmm. donc leeral leeral TV. voilà di kontaan bu baax a baax a baax ci sees bi ngeen ñëw seesi tey mm-hmm. Bara Couture. di présenté wu rek di wax ni man la Tafa Fall Bara Couture maa ngi tudd Moussa Fall. sama atelier moo tudd Bara Couture ñu ngi fii ci. Ouest Foire mais tey da ngeen ñëw si sees ñu fii Ngor Almadies suñu boutique bu bees bi nga xam ne moom la ñu ubbi fii voilà ñu ñëw seese la nag si si place bu bees bi nga xam ne moom nga ubbi yàggul dara nekk fii ci almadi ñu buggoon xam Bara euh, lan moo indi Bara Couture bi parce que boo gisee Bara Couture Ouest Foire lañ la xamee woon ñu dox ba affaire yi nga ñëw fii ci Almadies euh, te yow nga tudd Moustapha lu tax nga def Bara Couture waaw loolu dama ci sawar di si tontu rek chaque jour euh, man maa ngi tudd Moustapha Fall laa tudd donc sam papa moo tudd El Hadj Baara Fall moom laa tuddee atelier bi. baara boobu nag moo dem di law di law ba ñëpp léegi baara lañ may wooye waaw baara lañ may wooye mais Tafa laa tudd. Ah, mais benn la. benn la waaw li waral atelier bi tam ñu indi ko fii Ngor Almadi ñun ñu ngi nekk West Foire lañ nekk si mhm. bi côté mhm. Brioche Dorée mhm. nekk fii Ngor Almadi parce que am na suñu clientèle bu bëri boo xamante ñu ngi nekk côté bi. ñu nekk si si Ngor euh, Almadi Wakaam Yoff tout seen coono dina gën a mën wàññeeku. Mhm. loolu moo waral ñu ñëw fii ko mhm. ah. kon ñoo ko déggandoo cliente yi nga xam ne ñu ngi dëkkee côté bi euh, Baara dafa ñëw nag fii nga xam ne mooy Ngor Almadi ubbi fi place bu bees euh, di fi jaay euh, ngir ngeen gën a jege affaire yi ndax Ouest soriwul waaye fii moo leen di gën a jege ñu bëggoon xam yaa ngi yëngu ci li nga xam ne mooy mooy ñaw di ngay ñaw ay tenues yu rafet muy góor ak jigéen di di di def lépp loo xam lu jëm ci wàllu mode la affaire yi naka la la dikkee da nga ko jàng wala da nga da jékki-jékki rek dugg si mm. waaw affaire lu ma dikkee moom mooy dama ko jàng mhm. parce que ñun suñu famille ñëpp dañuy ñaw quoi mhm. sama maam da doon ñaw sama papa daf doon ñaw donc bi ma demee nag ba war a jàng métier man tamit dañ ma dugal jàngal ma métier mhm. euh, maa ngi nekkoon Sénégal ba dani foofu laa nekkee foofu laa jàngee métier ba ba ba ba ñu ber ma aussi ma beru ubbi sama atelier commencé di liggéey donc ci laa ci nekkee di ci liggéey di si góorgóorlu ba tey ji depuis 2003 lañ ubbi atelier euh, Ouest-Foire donc ba tey ñu ngi siy góorgóorlu di ñaan yàlla mu yokk rek feneen fu ñu mën a dem rek ubbi fa atelier ubbi ko fa pour euh, mën gën a mën a investir ci dëkk bi gën a liggéey ci dëkk bi quoi. Mm-hmm. loolu moo waral taxawaay Bara Couture quoi. macha allah muy lu nga xam ne lu am solo la. Mm-hmm. nga ubbi atelier depuis 2003 2003 ak léegi xam nga du benn fan yàgg na lool. Mm-hmm. nga dem ci macha allah euh, bi ngay ubbi atelier boobu nekk West Foire. comme mm-hmm. ñaw bi moom da nga mën naa ni doonante la. Euh, ki wal du tëb doom euh, nekkul loo xam ne da nga tëb def ko say maam la jógee. sa papa ba yow nga ñëw def ko. bi ngay ubbi atelier bi West Foire da nga dañ la financé wala yow yaa demal sa propre bopp. non non bi muy ubbi atelier wu nekkoon ci sama mag mu jàngal ma métier. Mhm. Euh, ma fay nekk di liggéey. Mhm. di liggéey comme embauchement foofu. Mhm. bi ma demee ba mu ber ma xam nga. ci laa dem ubbi atelier Ouest Foire fekk boobu dëkk naa Ouest Foire ma ni pourquoi pas fii du fi ubbi atelier mhm. ci laa si ubbee benn am benn machine foofu di liggéey mhm. donc ba yàlla di yaatal ko xam nga mhm. yokk ko tamit ba ku ci nekk xaj si donc noonu lañ demee vraiment début bi tamit yombul woon parce que àdduna moom lépp loo gis rek nekkul loo xam day xëy xëy rek sotti quoi il faut nga nekk di ci ràññte di ci di ci di ci par benn benn ba ba ba li nga ci bëgg nga am ko si donc loo xaarul daal doo ko fa doo ko fa dëgg la loolu dëgg la nga xam ne bi nga ubbi place bi tey ñaata nga yoroon xawoon na bari wala <laughs> tuuti du ndax léegi da ngay gis koo xam ne euh, peut-être mm-hmm. ah, <laughs> yaa ngi commencé ci benn machine mm-hmm. machine bi ñaata nga ko jënde woon ak ban sob ñaata nga amoon si xaalis est bari woon na temps boobu non wax dëgg yàlla euh, xamatuma ko mais amoon xaalis xam nga affaire tamit booy boo jógee si benn affaire di dem uti dèjà boobu pour mu am magasin sax dama ko lijjanti mhm. dem dajale ba jël naa magasin pendant trois mois yoo xam ne liggéey ma fa mhm. maa ngi koy fàttaliku bu baax pendant trois mois yoo xam ne jël naa ko tëj ko di liggéey amul ma fa def amaguma machine amaguma dara si laa nekkee di góorgóorlu di xam affaire moom boo dul bàyyi rek Mhm. suñ borom da lay fekk si quoi. donc di góorgóorlu ba am yàlla dogal ma am lu ma jëndee benn machine ma jënd benn machine di financé atelier bi di liggéey yombul woon moom yombul woon franchement di ci nekk di ci góorgóorlu ba tey parce que loolu tamit di ci profité di wax suñu raq yi nga xam ne ñoo nekk euh, suñu ginnaaw mhm. ñu gën a góorgóorlu si loolu quoi parce que métier nekkul loo xam da xëy xëy rek mu sotti mhm. il faut nga am jaar-jaar jaar boo ñemewul lu la fa na def mu neex dëgg du mën a nekk ndaxte jamono dañ toll foo xam ne. Mm-hmm. xale yi léegi jeune entrepreneur yi bari nañ torop ñi ngi yëngu ci wàllu ñaw bi ñi ngi yëngu ku nekk yaa ngi xool. Mm-hmm. ci li nga mën a yëngu ngir amal sa bopp. Mm-hmm. mën naa ni ku ci bëgg a avancer rek bu xoolee si yéen ñi nga xam ne yéen a si jiitu. dinañ mën a dem ndax gis nañ taxawaay bi ngeen ci am. Bara ñu xam la fii Sénégal xam la xam la au niveau international. ñëpp koo wax mu ni Bara Couture ñëpp la xam mën naa ne. wax dëgg yàlla nga nekk ku dal koo xam ne li ngay liggéey mën nga ko. ay di organiser li nga xam ne mooy ay défilé non. Mm-hmm. waaw si Bara Couture comme li ma la wax rek liggéey boobu liggéey bu yàgg la quoi xam nga depuis 2003 ba léegi nekkul benn fan nekkul ñaari fan. donc liggéey nañ ko xam nga euh, respecté nañ suñu clientèle bi. tey boo xoolee depuis ma ubbi ba tey am na ñoo xam xamante ba tey ji dama leen doon ñawal maa ngi leen ñawal ba tey. Mm-hmm. maa ngi ñawal seen ay doom donc loolu liggéey bu baax moo koy def. parce que nit ki tamit nit kenn mënu leen nax. tey bu fekkente ne da nga ubbi atelier woote xam nga te mhm. foofu dara nekk fa ku ñëw du fekk dara aussi mhm. euh, doo am base boo téye sa clientèle aussi loolu mhm. baaxul conseil ma ko kenn quoi na ku nekk rek li ngay woote na fekk mu nekk si yow donc métier bi nga xam ne moom nga am na nga ba métier Euh, ba mu ba mu mokk mhm. parce que tamit clientèle bi déplacé di ñëw seen tissu dafa day cher si ñoom valeur lay nekk si ñoom bu ñëwee jox la ko respecter rendez-vous yi euh, donc loolu avantage Bara Couture la mhm. donc respecter qualité bi avantage mhm. Bara Couture la euh, donc loolu moo waral tey ba liggéey boobu moo ñu poussé ba partout dans le monde la dem donc défilé nañ fu nekk Sénégal fi défilé nañ fi façon défilé bu nekk défilé nañ ko fii ak en extérieur aussi liggéey daal moo lay moo lay yóbbu foofu daal. Mhm. dëgg la mu mm. nekk lu am solo loo xam ne dégg ngeen ko Bara Couture nekkul fii Sénégal kese Bara Couture international la képp koo xam ne mm. yaa ngi Europe wala nga nekk Amérique wala foo mën a nekk si àdduna bi ndax wax nga ko sànq da ngeen nekk en partenariat avec euh, la DHL. Mhm. nga xam ne da ngeen di da ngeen di liggéey yéen ñaar nga xam ne képp koo xam ne nekkoo Sénégal sax. Mhm. dañ euh, DHL dina la permettre. nga mën a woote passer sa commande. wax sa sa sa sa sa nu mu sa taille wala ban ban ban sa mesure. wax li nga xamante ni moom ngay sol baara daal di lay préparer yónnee la te bu ñëwee dalay jot mm-hmm. nga xam ne loolu euh, mën naa ne ci yëre tubaab yi nga xam ne da doon jóge Europe euh, wala Amérique ci lañ ko doon gis mm-hmm. nga ñëw nag indi loolu ci li nga xam ne mooy ñaw bi loo ko loolu nan nga ko nan nga ko gisee parce que àdduna chaque jour da ngay xalaat rek innovation moom chaque jour ku nekk am nga sa xel am nga sa xalaat tey jii tamit boo xoolee tey covid bi bi mu ñëwee da xaw na jàpp képp kuy xamante ni euh, liggéey kat nga yor liggéey ay employé di liggéey jàpp na la laal na la est-ce que comprendre nga donc loolu bi mu ñëwee ci la xalaatee ni kat pourquoi pas duñ jéem a changer benn système boo xam ne dañ ànd ak àdduna bi di dox te yàlla dogal na boobu ak léegi ñun dañ doon tukki période yi nii du fekk am fête amul woon tabaski amul. Mhm. Korité amul dañuy ñaw suñu ay ñaw dem voyage yi. dem ci foire yi dem ci àdduna fu nekk pour rien que rek dem jëli ñëw indi suñu réew. donc loolu dem nañ ba possibilité amatul te ku ci nekk yaa ngi toog sa biir dëkk. ak mhm. feebar bi nekk fii nii ñu ñaan yàlla mu jég mu génne ko fi. waaw donc loolu moo waral ñu xalaat ni kat pourquoi duñ def boutique prêt à porter mooy boutique bi ñu ubbi nii. Mhm. donc ci yëre góor yi dañuy def ay taille am na taille M L XL double XL ak triple XL. ku nekk ak bi ngay sol quoi donc modèle yi am na ay couleur bu ci nekk tamit am na couleur mhm. donc loolu moo waral ñu ni kat dañuy def loolu ubbi boutique boo xam ne prêt à porter lay nekk ba ci grand bu trois pièces grand mhm. bu bi nga xam nga sa taille benn boutique euh, mhm. mag yi di nga ñëw fekk ay taille nga fay fekk te boo xoolee di nga xam lii di la jot la wala lu la jotul la li si des mooy problème couleur la te couleur yi boo xalaatee di nga xam li nga bëgg donc ñun mën nañ loolu mën nañ ko defar fii suñu dëkk di ko exporté ci àdduna bi fépp mu daj fa parce que ñu loolu lañ bëgg dañ bëgg jaay suñu culture li nga xamante ni moom la suñu jeunesse nekk fii di liggéey mooy jeunesse euh, tailleur yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci àdduna bi di ñëw mm-hmm. rawatina Sénégal li ñuy jaay gën jaar loolu moo waral tey suñu partenariat bi nga xam ne amoon nañ ko ak waa DHL mm-hmm. parce que ñun euh, dañuy nekk liggéey ñoo xamante ni ñi si ëpp ñuy liggéeyal en extérieur la ñu nekk mm-hmm. dañu nekk commandé ñu ñawal leen yóbbu leen donc comme mënatuñ dem donc amoon nañ partenariat ak waa DSL boo xamante ni ku ci nekk loo ñaw lu ñu la ñawal rek commande bi mën nañ la ko livrer sa adresse ngay joxe rek mhm. ñu livrer la ko ba sa kër ñoom xam nañ DSL nu muy doxalee ay mbiram ñoom ay professionnel lañ te dinañ liggéey seen liggéey ba mu ba mu mujj ayib donc boo defee sa commande boo ñu yónnee sa adresse dañ lay ñawal ba mu rafet paqueteel la ko defal yëpp sa couleur ak lépp la ko mu ñëw solo loo xam ne Bara Couture indi na ko fii nga xam ne ci mooy ci ci ci mode bi mhm. euh, nga xam ne loo xam ne yombul woon mën naa ne euh, bokk nga ci ñi ko fi njëkk def muy la am solo ndax euh, mhm. nit yi des fois dañuy taayal ci jël mesure wala mhm. wala wala ay dafa ëpp ak dafa lii dafa lii xam nga loolu dafay xaw a metti ñu gis ni Bara yamul kase ci ñëw ay basin wala di ñaw ay ay ay li nga xamante ni mooy ay ay ay ay brodé genre yooyu gis nañ fi ay wax mhm. gis nañ fi ay ay ay nu mu yi góor yi di sol comme genre yi mhm. gis nañ ko fi yooyu naka naka naka ngay def ba ba ba mélanger les couleurs. Mhm. Euh, parce que gis nañ fi ay différents couleurs gis nañ fi ay yoo xam ne tey ku ñëw góor bu ñëwoon di jënd sax da ngay ne da ngay am euh, embarras de choix doo xam ban mhm. ngay choisir euh, loolu nga xam ne ku yënguwul ci mode wala baara bu fekkoon yàggul si affaire yi du ko mën dëggantaan jaay mhm. naka ngay liggéeyee lool waaw parce que loolu lépp rek expérience liggéey la rek expérience liggéey la parce que boo xoolee lii loo ci nekk benn fan ñaari fan waxuma nga def si ay at mhm. sa comprendre da nga koy xam mhm. ñu ko maîtriser bu baax baax tey boo xoolee clientèle bi léegi ëpp ñu def loolu ba tey boo indee sa mbasin wala nga indi sa tissu mhm. dinañ la ko ñawal comme ni nga ko doo bëggee mais tamit dañuy ñaan yàlla yokkute ci liggéey moo xam noonu lay gën a yaatoo donc loolu moo waral ñu xalaat lii tey jii boo xoolee am nañ ay vaccin yoo xam ne ñaaw nañ ko pare ay demi saison lay mhm. nekk te nit ñi dañ koy bëgg mhm. dañ ko doon xalaat duñu xam fu ñu koy fay dañuy ah, temps bi war a def pour dem jëndi vaccin ñaw ko nekk am nañ ay vaccin yoo xam ne ñaaw nañ ko pare ay demi mhm. lay nekk da sol mën dem liggéey ak ay robe yoo xam ne léger la dëgg a sol dem liggéey sa bureau ak costume africain yi xam dañ koy def par la yëpp am na xaftaan bazin yeeg gis nga ba ci accessoire ay dàll yëpp. dañ koy mhm, def gis nañ ni yaa ngi defar li nga xam ne mooy ay dàll di made in Sénégal. Mhm. Euh, nga xam ni man bi ma duggee sax biñ ne ma daal di Sénégal lañ ko defaree daf dama ko doon xoolaat xam ne dëkk bi fii xale yaa ngi fi di defar defar lu am solo nga am solo ay dàll yoo xam ne fii lañ ko defaree ci réew mi. Mhm. te tey boo ko solee ak buñ ko euh, méngale ak dàll yi nga xam ne mu ngi jóge Europe wala Amérique wala fu mu man a jóge ci àdduna bi. da ngay jël ne yii moo dàq loolu nekk lu am solo nag euh, loo xam ne am na solo torop ci jamono jamono bi ndax euh, dañu dëkk bi comme fi la ñu dëkk nañuy fexe di jariñoo li nga xam ne ci dëkk bi lañ ko defaree euh, dàll yi euh, naka la la dikkee ndax dama dama gis ni bari na ci boutique bi trop gis naa ne yi fi nekk yépp ay dàll local la nga koy defar di ko di ko jaayaale ji nga xam ne ñooy sa ay client mhm. mu rafet lool sax macha allah. waaw loolu man Made in Sénégal laa gëm. Mhm. Made in Sénégal laa gëm parce que artisan la mhm. en temps tamit styliste la tailleur la donc damay promouvoir li nga tey ji su ma sañoon kenn du mhm. sol loo xamante ni euh, defaree wuñ ko Sénégal. dëgg la donc euh, loolu moo waral ñu yaatal liggéey ba nga xamante ni tey su suñu mbokk yi nga xam ñoo fi nekk. Mhm. tapissier tey ba si canapé yi ñu sol nii fii lañ ko liggéey. Mhm. Euh, ay tapissier yi nekk fii ngeen ñoo ko liggéey. da nga def apporter te fii la am si dëkk bi. daal yi aussi la même chose ñi koy liggéey fii lañ donc pourquoi pas dama am ak ñoom partenariat boo xamante ne ñoom ñoo may lépp lu ma ci soxla rek damay dem wax ak ñoom ne ko lii laa soxla taay bi design def samay design ne ko defal ma lii mhm. mu defal ma ko su ñëwee man ma man ma man mu def sama boutique jaay ko ci sama marque ñu liggéey mhm. liggéey ensemble loolu tamit dina dimbali nit ñi tamit ci ci ci bi nga xam ne moo nekk si dëkk bi mhm. di ci sensibilité suñu autorités yi tamit ñun ñoom ñu gestu tamit euh, artisans yi nekk ci dëkk bi parce que lépp loo xam ne nit ñi ni ko doon dem di ko jegaane rek mën nañ xam nga dina dina tax tamit cordonnier bi dina la tapissier dina dund menuisier bi. ñëpp dinañ ci gis seen bopp dina permettre aussi xale yi nga xam ne ñu ngi doog a commencé di euh, di di tappalaatu ndànk-ndànk. Mm-hmm. dina leen permettre aussi ñu gën a sawar ndax des fois nga gis koo xam ne du sawar a defar di jaay ndax danaan su ma defaree kenn du jënd. dina leen permettre bu baax a baax ñu gën a jàpp parce que tamit liggéey liggéey ku ci nekk rek moo koy xam. dëgg la parce la dèjà tey ji am na association boo xam ne maa ngi ko jiite muy ADESMAT mm-hmm, mm-hmm. muy tey nekk fi Sénégal mm-hmm. donc xam naa li xamante ni nit ñi loo xam ne yow yaa leen yaay seen jiit <laughs> uh, fii nii maay seen président waaw macha allah loolu naka ngeen koy ngeen koy ngeen koy dundee ndax uh, man dama gis ni yéen ñi nga xam ne yéenee teer yi fii Sénégal gis naa ni da ngeen a àndandoo trop donte miinuma si ñu bari mais des ma gis ni dangeen ngeen jàppoo amul concurrence ci seen biir loolu dama koy dama koy seetlu bu baax a baax loolu euh, nekk loo xam ne lu jafe la ndax d'habitude da ngay gis ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk métier bi nga xam ne moom la ñu def ay concurrent la ñuy nekk kii day jàpp fii kii jàpp fii tey coow fii suba coow fii nga jiite tailleur yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp ñu jël seen kàddu jox la ko nga nekk seen njiit te loolu mën naa ne sa yar moo la ko may ndax euh, du tay laa la xam yàgg naa la xam yàgg naa gis li ngay def bu baax a baax ñu jël ñu jël kóolute ak yooyu yëpp dénk la ko euh, maanaam loolu naka naka naka nga ko dundee. waaw loolu dama si sant yàlla rek parce tamit euh, àdduna moom lépp loo gis rek nit ki li nga mel rek noonu la la nit ñi di di fekk si te yaakaar naa ne ñun secteur bi ñu nekk ni amul concurrence ci li ma gëm mm-hmm. képp ku bëgg a liggéey rek mm-hmm. yow da ci nekk te da liggéey mm-hmm. te li nga war a am da am li nga war am alaakuli an di nga am donc même bu ñu taxalooy boutique wala ñu bokk benn boutique bu ñu nekk mhm. tey soo ñëwee sa clientèle li mu war a jënd lay jënd li mu war a jënd si kii lay jënd si kii ci confiance bi nga xam ne am nañ ko si man euh, jox ma ko ma ma ma ko booba léegi ànd si ñoom di liggéey yàlla dogal ñu ciy def ay résultats yu am solo ci mhm. nekk yaa ngi ciy teg sa bët mhm. donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax ci confiance boobu nga xam nañ ci am lépp donc li ci des mooy suñu autorité ñoom ñoo war a jàppale dimbali leen dimbali mooy ñoom mm-hmm. li li ñun li ñuy produire fii ci dëkk bi ñoom ñu koy consommer bu ñu ko doon def rek tey euh, chômage bu bëri dina wàññeeku mm-hmm. tey xale yi di jël gaal gi di dem mm-hmm. yëpp mën na mën na gën a wàññeeku parce que ñun ñu dem ñëpp ku ci nekk am nga métier boo nekkul tailleur menuisier nga wala maçon nga wala nii mais bu fekkente tamit ah sa euh, autorité yi xam ne ñoom ñoo tey koo li fay nekk lépp importé la. importé la dëgg yooyu tamit day nekk loo xamante ni. dëgg la daa ñoom bu ñu consommé ñu nga fekk koo xamante ni mi ngi sol benn costume wala dara wala loo xamante ni. waaw euh, te yi ngeen di yi ngeen sa place fii sa sax nekk na ay tenue yoo xam ne mën na dem bureau mën na dem fépp day dem te mooy gën a yomb mooy gën a yomb du cher trop mooy gën a yomb mooy mhm. gën a am qualité mhm. te mooy gën a baax ah, moom lañ ñëwee fii si dëkk bi saytu ko ba def lépp. ni mhm. nga ko mën a sol solaat ko solaat ko. Mhm. tey am na ñoo xam ne ñeneen ñaw yi nga xam ne loolu la sol. wala daal mhm. mu jëlee ko bitim réew andi ko fii. mënoo ko sol fóotaat ko solaat ko. donc ba ci mhm. am na solo am na solo trop euh, Bara Couture xam naa léegi ñu jeexal incha allah ñu bëggoon xam euh, yaa ngi am nga boutique boo xam ne mu ngi nekk euh, atelier bi mu ngi nekk West Foire yaa ngi fii nii fii ci Ngor Almadi est-ce que Bara mu ngi préparé pour dem ci ci banlieue bi ndax tamit dakaar du du Almadi kese du West Foire kese du mhm. ville kese mhm. banlieue bi tamit war nañ gis seen bopp ci affaire yi di solo di sumeeku di sañse te te déplacement yi du metti ñoom trop est yaa ngi yaa ngi bàyyi loolu xel non man maa ngi bàyyi la euh, loolu xel parce que man maa liégear la mhm. man géejawaay laa dëkk ah, foofu laa juddoo foofu laa mhm. yaroo di leen remercier bu baax waa géejawaay parce que ñoo mhm. def lu ma mën ñoo def si donc kon euh, dañoo génn dem liggéey dañuy ñëwaat sa Sénégal fépp benn la Dakar lépp benn la donc ñu ñaan tamit tey am boutique bu mel ni ñu am ko géejaay am ko feneen ak feneen ak feneen lépp ci Sénégal parce que suñu projet nekkul te ni dañuy yam fenn wërsëg waroon di jaar si yow wala ñeneen ñi nga xam ne seen xam-xam si yow ñoom la yow la waroon jaar mhm. dinañ xaw a bloqué mhm. ci benn côté dañ ñaan yàlla tamit yàlla euh, jàppale ñu xam nga yokkal ñu tamit li nga xamante ne ba ñu euh, atteindre suñu projet yi am yëpp mhm. mais yamuñu ci bi tey nu mu nekkee fii ñaan ñu ko yàlla yam fii ñu sañoon dañu nekk centaine de boutiques donc mais nag loolu lépp dafay am ay moyens moo koy def il faut nga am ay jàppale yoo xam dina ci am wala liggéey bi gën a dox comprendre nga mhm. loolu lépp nag ci loxo suñu borom la nekk ñu ñaan yàlla oyfal lépp rek ba baara ku ci foo ko

façon bi nga defee mais mu bosam dafa am solo c'est spécial ndax euh, mi ngi ciy yëngu am ci fula ak fayda dem ba ñuy dénk ko li nga xamante ne si de mooy tayër nekk si Sénégal yëpp mu jiite leen mu nekk seen loolu yombul ñu bëggoon xam rek euh, balaa ñuy jeexal euh, Bara fii ni boutique prêt à porter la am sa assistante teg ko fi macha allah ñu koy nuyu de passage mm. bu jongama bi macha allah mu bëggoon xam fii nii sur commande lay nekk wala da ngay da ngay exposé nit ñi dañuy di jënd comme ni ma ko gisee nii si boutique bi. Mm-hmm. waaw fii fii nii Ngor Almadi nii moog West benn la rek. Mm-hmm. li ñuy def West la ñuy def fii bu la neexee nga ne sa soo amee xew wala ngénte daf leen bett nga jege am benn cérémonie wala nga jege am benn mariage wala dara. doo xam foo jëm. nga ne xaaral ma woo Baara rek waaw léegi nag loolu Baara Couture am na solution bi léegi boo ci amee loo xamante ni da programme bu la bett la. Mm-hmm. yow wooteel Baara Couture wala nga ñëw Baara Couture nga ñëw West ou bien nga ñëw encore woo Baara rek mu livré la puisque Baara moom day livré partout dans le monde. waaw wala nga dugg si ah, internet. wala nga dugg si site internet ah, Instagram ak euh, euh, Facebook fépp foo tapé mhm. Baara Couture rek. Mhm. Euh, di nga ko gis incha mhm. ndax nekk na koo xam ne wax dëgg yàlla du du du tey rek la la nit yi xam. xam nañ la bu yàgg foo tudd Baara Couture rek dinañ xam ne Moustapha Fall. moom mooy borom Baara Couture non nit ñi moom nit ñi moom kenn du leen seexal suukar wala dara. <laughs> xam nañ lu baax fu la loolu am na solo cérémonie wala xew bu la bett wala dara mhm. nga soxla dàll marakis wala xaftaan grand boubou lépp loo jàpp ni mën nga ko war a sol soo mhm. wootee Bara Couture Euh, suñu numéro téléphone mi ngi nekk 77 553 00 46 ou bien nga ñëw suñu adresse. Mhm. Ngor Almadi. Mhm. wala si ko en face gendarmerie bi. ou bien mhm. Ouest Foire si côté Bios Doré. donc boo ñëwee ou bien nga def suñu suñu internet 3W point barakoutir point sn. donc wala Facebook Instagram. foo dem di nga gis baara foo dugg daal. loolu am na yàlla dogal di nga fa fekk barakoutir te ñu ngi fa. loolu te ñu ngi leen di xaar prix abordable na yomb na. te lépp lu waaye soxla rek foo mënti nekk ba même bu mënul déplacé wu boo defee commande bi. di nga ko fi am ñu livré la ko sa domicile nga ñëw fekk. nga ñëw ah, waaw allah ma bàyyi la nga bàyyi lancé benn message ci xale yi nga xam ne ay ay xale lañu ay ndaw nekk fii ci Sénégal euh, bëgg nañ ci luñ jàpp mais xam naa ne expérience bi mooy xaw a manqué. am ci ñoo xam ni peut-être seen xaw nañu saalit ba jël gaal gi am ñu ci jot ñàkk seen bakkan yàlla na ne yàlla yërëm am ñu ci jot a rëcc euh, am ñoo xam ne ba tey ñu ngi def seen xel ne dama war a tekki farfoosu dëkk bi pour tekkee fa te xamuñu ne Sénégal nit yaa ngi fi nekk di fi tekki di fi di fi am di fi amal seen bopp di teral seen waajur yi mu bëggoon rek nga lancer leen benn message boo xam ne dina dina leen mën a mm-hmm. permettre mm-hmm. yokk leen force suñu gën a góorgóorlu def comme baara couture mm-hmm. waaw sama rakk yooyu moom dama leen di euh, ñaanal rek am nañu si jot a génn àdduna mm-hmm. donc di ñaan yàlla mu yem foofu mm-hmm. donc di leen wax rek àdduna dara jarul yàkkamti nañ gën a concentré wu parce que ku ci nekk rek ku mm-hmm. def loolu rek dem jël gaal wala dara nekkul bon moo tax ñu def ko quoi parce que bëgg nañ tekki bëgg nañu am oh, comprendre nga moom moo leen dugal ci loolu mais noonu loolu dama leen encouragé te wax leen nit ki loo mënti am ak loo mënti mel sa jàmm moo gën ak sa wér gi yaram ak sa lépp moo gën parce que tam nit mën nga dem fu nekk man tey a tukki man loolu mënuma ko sax expliquer. Mhm. te jaaruma ci gaal jaaruma ci dara. Mhm. te de vol laa jël wàcc dëkk boo xam ne mosuma fa xam nit. Mhm. dëkk Nigéria laa njëkk a voyagé te loolu. ak loolu ni mu méttee def na 15 ans ak léegi su ma juumul. donc wàcc si dëkk xamoo fa kenn. donc jël sa temps dem jaay li ngay am soo retourné ñëwaat sa dëkk. donc muy kum ci mënti nekk ci jeunesse bi. ak métier boo mënti am téye ko rek. soo ko téye suñu borom dina la woon ay buntu. nga nga am foo ci mën a jaar ba. li nga bëgg lépp nga am ko te Sénégal bi bu ko xeeb aussi. lépp loo fi bëgg mën nga ko fi am. ci kaw nga am patience bi am gëm-gëm bi. Mhm. comprendre nga am jub bi tamit. Mhm. loolu c'est très important am jom bi rek quoi donc di leen encourager di leen wax ngeen gën a rek. te mhm. bañ yàkkamti te xam ne lépp rek mën na nekk. dina ñëw incha allah incha allah kon Baara euh, ñuy kontaan boo bu baax ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko. Mm. Euh, wax dëgg yàlla yëg gi ak dalal bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak nga bàyyil message ñi nga xam ñooy say clientèle. Mm. nekk partout dans le monde. Mm-hmm. waaw di kontaan rek si yéen waa leeral point net. Mm-hmm. donc di kontaan bu baax di rafetlu seen liggéey bi nga xam ne yéen ngi koy def ci dëkk bi tam rafet na mm-hmm. ñëpp ñu ngi koy rafetlu. donc di remercier sama clientèle yëpp ñu nekk partout dans le monde. ñu nekk même ñu nekk Sénégal ak ñëpp.

àdduna bi yëpp mhm. di ñaanal suma yaay sama papa yàlla baal yàlla bàyyi leen fii man yàgg leen di gis di leen yàgg di teral di ñaanal sama soxna aussi di ko gërëm di ko remercier ci confiance bi mu am si man ci jàppale bi mu am si man tamit mhm. donc di remercier àdduna bi yëpp maa ngi mhm. kontaan bu baax ci émission bi ngeen ma dalal tey voilà kon mu ngi noonu euh, ngeen àndoon ko ak ñun li nga xam ne mooy leeral taa di am tous les mercredis à 16h fii ci leeral TV tey nag waxoon nañ leen ko bi ñuy commencé fii lañ ñëwoon ci Ngor Alma di seet si ki nga xam ne mooy Baara Fall euh, Moustapha Fall di di Baara Couture mu nekk styliste boo xam ne euh, ku yàgg la ci métier bi yàgg ci loolu macha allah am boutique fee nga xam ne mooy West Foire fan yi nag mu benn prêt à porter fii ci Ngor Alma di tey nag moom lañ ñëwoon dalal seet si ko képp koo xam ne bëgg nga ñëw fi nga xam ne mooy Baara Couture rek jarul ngay sonn dangay ñëw fi nga xam ne mooy West nga woote ci 33 820 36 73 wala nga def 77 553 00 46 33 820 36 73 wala 77 530 553 00 46 wala nga ñëw fekk ko fi nga xam ne mooy West Foire côté Biros Doré bi wala bu fekkee côté Ngor nga dëkk wala Almadi wala Wakam nga fekk ko fi nga xam ne mooy Ngor Almadi euh, fii nii en face gendarmerie Ngor bi foofu la nekk tafaafaal di baara couture nekk koo xam ne ku yàgg loola ci métier bi euh, euh, nga xam ne daf ci yàgg ba tailleur yi nga xam ne ñu ngi Sénégal yëpp dañu jël seen kàddu jox ko ko mu jiite leen loolu nga xam ne yaram ak tegginam rek moo ko may moo tax képp koo xam ne yaa ngi ci métier di ci yëngu rek war na ci yar ak teggi ndax loolu moo la ci mën a jëmalee fi nga jëm kon ñu jox leen dig daje beneen mercredi incha allah fi ci Leral TV ak Leral point net ngeen préparé nag daal di ñëw Baara Couture jënd si ay yére am na góor am na jigéen am na am na dàll lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek fii ci Sénégal ci lu jëm ci wàllu sañse rek di ko fi fekk incha allah kon ba beneen incha allah les téléspectateurs ak téléspectatrices